mbokk yi dal leen jàmm ginnaaw bañ leen nuyoo di am mbégte saa ne fii ci baatu xol bi Dakar Live TV seen taxaw seetlu ñëwati ginnaaw bañ ñu indil tuuma yi ci ndoddam ki nga xam ne mooy Sonko moom ko moom nag mu demoon foofee ca gendarmerie Colobane jot ko porté plainte mbir mi nag bëri woon coow lool lool lool ginnaaw loolu am ginnaaw ba mu nekkee député en fonction mbir a xew ci Sénégal moo nekk seen jugoon nañ génn joto yàqu lu bëree bëri li nga xam ne nekk na ci askan bi nekk li nga xam ne moo nekk suñu bokk moomeel waaye nag mbir mi gis nañ ne saa su nekk rek bu ñu xëyee day am lu bees gis nañ sax ñenn ñi nga xam ne ñooy liggéey foofee ci salon de massage boobu nekk ah, ne mooy yoon ginnaaw yenn information yi ñu am ah, kenn ki nga xam ne sax bokkoon nañ ci massage yooyu noonu ah, tudd Mam jot na indi ay leeral ci mbir moomu di wax ne nag nga xam ne mooy Ousmane Sonko jotoon na fa ñëw waaye moom bi ñu nekkee ci li nga xam ne mooy salon de massage bi moom dafa jotoon a génn am lu mu noonu lijjanti ñoom ñaar la fa bàyyi woon waaye tamit déggul benn yoon bruit jotul dégg lenn loo xam xam ne jot na am foofu noonu la comme bruit ci fi nga xam ne mooy salon de massage bi ah, te ci kàddu Sonko tamit moom jotoon na sax di leeral ne ah, ci point de presse am ne ah, moom la jot am ne moom dina dem uy ji indi ay leeral waaye ci mbir moomu nag démb ci Walfadjri ki nga xam ne moo nekk maître El Hadji Diouf nekk avocat bañ ko invité ci émission blanche moom tamit indi indi na ci ay nag a xam ne ñaari sénégalais ñoo jotee ku jigéen ak ku ñi dañ cee war a def ndànk waaye moom sax mu ngi xam ne comme que sénégalais yi moom bis ki tey jël na li nga xam ne nag mooy robu avocat am sol ko ngir jàppale ki nga xam ne mooy Adji Sarr ndax nag doomu réew mi la doomu Sénégal la mbir mi nag ñenn ci sénégalais yi nag daal nag jëlee nañ affaire bi naa li nga xam ne mun nañ tamit neexul leen benn yoon parce que nee nañ Maître El Hadji Diouf saa su nekk rek moom mu génn indi position boo xam ne daf la jaaxal waaye lu ci ambaam daal ne kenn ku nekk am nga droit aussi tamit far kenn ku nekk am nga droit wax sa xalaat démb gis nañu émission blanche bi tàng na lool ci mbiru Ousmane Sonko parce que kenn ku nekk rek mu ci doon wax xalaatam waaye tamit boo demee ci 7TV foofu noonu ah, Birima lañ invité woon Birima Ndiaye mi nga xam ne moo nekk chroniqueur foofee ca ki nga xam émission jàkkaarloo sa TFM moom nag dem na 7TV moom tamit joxe li nga xam ne mooy xalaatam di jot dal ci du mooy immunité parlementaire bu ko wooyee day dem wuy ji nee nag comme dañ ko jiñ li nga xam ne viol goro fa waroon def loolu mu dem wuy ji direct moo gënoon coow comme dafa am ñaari soxna li waroon def mooy dem setal boppam waaye bu xaar ñuy génne li nga xam ne mooy immunité parlementaire mbir nag xam ne ko foofee ci 7TV ñu gis ne ne kenn ku nekk rek yaa ngi wax ca xalaat ci mbir mi ñenn ñi ko jàppee mbiru politique ñenn ñi ko àllarba bi dafa génnoon di def yenn euh, visite courtoise dem seeti ñenn ñi nga xam ne jot nañ gaañu ci ay ndawam ñenn ñoo xam ne ñooy ànd ak moom dem na ci li xam ne mooy hôpital Grand Yoff dem ci seen kër yi xooli leen gis na benn visite fii ci Ndakaaru ak lu ko wër tey génn yi ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ay partisans jot a gaañu ci ne jotoon na xew foofee ca këram waaye tamit ci lu ko wër ñu gis ne ko lul benn jigéen rek boo xam ne moo jot a li nga xam ne mooy tuuma ci kaw Ousmane Sonko te mbir mi nag amaguñ ci lenn du ñu leen ndax nag yoon waxagu ci lenn waaye lu ci am am daal mooy jàpp leen ne ab Adji Sarr moomee daal moo indi mbir mii yëpp Sénégal bëgg a tàkk waaye tamit Adji Sarr sax si boppam ñu ngi wax nañu ci ay rumeur dañ ko fexeel bëgg kaa génnee réew mi lu ci am am daal mooy ne mbir moomu la ñuy wax mbir moomu daal mi ngi daw xamuñ am naam amul waaye jàpp nañ daal ci information ne te nit ñaa ngi koy partagé bu baax a baax ci réseaux sociaux yeeg yenn médias yi ñu ngi koy wax mooy ne Adji Sarr kat moom dafay fexe xool nan lay génnee réew mi waaye tamit sa Sen TV wala ca fi nga xam ne moo nekk des médias Ahmed Aïdara journaliste moom dafa jot a génne benn information foofu di def ay révélation ne boo demee Adji Sarr fa ay mbokkam dëkk sa information bu nit ñi di wax foofu mooy ne Adji Sarr nekkutoon koo xam ne day toog saa su nekk rek day taxawaal nekkul jigéen bu téye boppam Ahmed Aïdara nag moo ne woon peut-être moom tamit am moo tax mu dugal loolu waaye jàppale ne daal coow li bëri na loolu Sonko moo def wala deful lu ci am ba am mooy mbir mi dinañ ko leeral tamit Adji teg tuuma Sonko tamit mbir mi yoon dina ko leeral ndax nag yoonu Sénégal moom jàpp nañ ni ñëpp la fi nekkal ndax taxaw seetlu lañ wax dafay baax ñu nit ñi lépp loo xam ne xibaar la waaye tamit ñu dem ak xel dem ak yar dem ak teggin bañ a indi coow waaye lépp rek nañ ko teg ci yar ak teggin lépp ñu leeral ko ginnaaw yenn tuuma yi nga xam ne mooy parcelle moom gis nañ ne daal ñoom tamit kenn ku nekk daal moom mu ngi profité waale tamit di wax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko waaye tamit ci manifestation yi tamit ba tey rek gis nañ yenn ci ndaw dem nañ sax yàq li nga xam ne mooy kër Mamour Diallo foofee ca Louga ak mu nekk nag mbir moo xam ne yéeme na lool lool ndax dara warul ko dul coow li nga xam ne jot na fee xew waaye nag ba tey rek ñu ngi gis ne mbir mi mi ngi avancé ndax nit ñaa ngi wax kenn ku nekk ci indi xalaatam waaye assemblée incha allah ci jeudi gi d'après les informations war nañ tamit ñoom tamit voté li nga xam ne moo nekk euh, pour dindi li nga xam ne mooy immunité parlementaire Sonko wala tamit voté xam ne pour xool mbir mi Sonko nan la war a dem uyu li nga xam ne mooy yoon daanoo ci li nga xam ne mooy talaata bi ñu koy jaale njabootu Mouride yëpp waaye di jaale umma islamique di jaale xalif général des Mourides waaye tamit amaat na beneen tiis boo xam ne tamit dalaat na ci kaw yoonu Mouride ndax soxna Wàllu Mbub nekk waajur bu jigéen ci ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Thioune gis nañ ne nag cantaakun yi tamit amati nañ dëj boo xam ne bu bees la foofee ca ñoom ñoom tamit ñu la jaaleel li nga xam ne moo nekk soxna wàllu mbub di wax na yàlla na ko yàlla xare àjjana fi daw si yàlla ne jot na dal seen kaw ci ñaari fan yi di leen ñaanal yàlla yàlla na dee doon seen noflaay yàlla na yàlla buur bi xarale àjjana fi daw si mbokk yi lii leen fi indiloon li gën a fës si seen taxaw seetlu